na ñaari waajur nga ne ña nga fa ñu ndax am nga seen ndigal nga ne waaw ñu la toogal boo nee déet ñu la demal si ñaari waajur nit bu fàqee bàyyi ñaari wajuroom la muy def ànduñu ko sa amul kenn ko ko mën a defar dub yonent dub xutbu dub aarifi ne kenn mënu ko defar loolu il ñu xam ko baax a baax a baax boo gisee nag boo nekk sa waajur ba sa waajur jël la nag jébbal sab sëriñ ne la kii maa la ko jébbal day mel ne kon la nga fa nekk def sa wajur nga koy defal ndax si ndigalam nga demee waaye diw dem na daara rek diw dem na daara naa dem daara dana waral ñëpp jële fa dara te yow doo fa jële dara fekk la ko waral mooy nit ñi ba ñuy dem dañoo amul ndigal te loolu boo demee ci mbindum sëñ Tuubaa daf koy aaye bu leen def dara dara dara dara ci lu dul ndigal ndax ndigal kat sart la ci nangu mbir li ngay def boo bëggee mu nangu da ngay bu am sa ndigal kon su ko defee yooyu cadre lañ doon euh, sànni tey tey jéglu bu baax a baax a baax a baax xam naa daal fi may gëw jooy sama kàddu mooy ci ndaw ñi rek na njëkkanteeg li desee seeni i wayjur yàlla na yàgg lool lool lool lool waaye na ñu njëkkanteeg ñoom ci fa tabaarakallaahu di dab seen i bànneex lu gën a màggee nag gën a naqee deret waaye su boobaa nga gën a góorgóorlu rek bul na mukk paa bi dafa naqee deret mère bi dafa naqee deret kenn mun a dëkk moom ñun ñoo leen gën a naqee deret fop ndax sa bàyyi lu mu naqee naqee wala si yaay eggugul si jooy guddi eggu si jooy guddi de te ñun daanañ jooy guddi daanañ jooy bëccëg lu nekk daa nga jëf ñu daañu boot daañu naxtaan kon nañ la naxe woon ba dëkk ak yow ca ba nga mënul dara wax dëgg yàlla boo leen naxee da nga mën a dëkk ak ñoom wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ndax bi muy ñëw mi nga ànd ak oustaz Faye moom miin naa ko ñooy bokk fu ñuy jàngalee fa tabarakallah kon ñu ne ma rakkal si moom loolu nag dafa am solo lool ndax yàlla subhanahu wa bi muy yónni yonent yi daleen leen daa yónni ci làmmiñu làng wa ñu dégg xeet wu nekk bu leen yàlla na dimbali day fekk kenn ci ñoom rek mu sol ko dara waaw xiir sa ña nga xamante ne fa tabaarakallaahu euh, ñoom ak ñoom dégg la ñuy wax ndax yonent yi moom duñ fi jóg ba léegi ñu ngi fi rek euh, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yàlla yàlla faral ni ko waxoon na ne képp koo xam ne kii boo nee dama na ñu déglu rek yow jàppal na sal nga sa ña ngay waxal koo xam ne ki boo yëkkatee kàddu rek am ñu lay déglu yow jàppal na sal nga sa ña ngay waxal yàlla yàlla xiir rek ba la leen di waxal ak fa nga leen di jëmee doon fu neex yàlla toolu bi yàlla moom moo yaatu may yi bari lool fa tabaarakalaaw ba kenn ku nekk rek fa nga nekk da nga yaakaar na fi la soo koy misaal day mel ne ndawalu guddi la rek ndawalu guddi bu baree kenn ku ne làmb sa loxo mu nooy ngay dagg da yaakaar ne yow yaa daj fekk li nga daj am na keneen ko daj loola kon su kon su ko defee fa tabaarakallaahu kenn ku nekk fa nga nekk dafa xaar yàlla dafa yëngatul yàlla ñoo ngi lay nangul loola di la ñaanal it yàlla na fa dajeel ngërëmal yàlla subhaanahu wa taala ko xool barki démb rek eh, Seydou Aboubacar ibnu Sëriñ Mansour xalif général Tidiane ba mu wootee jumaa ji gis ngeen Seex Muntaxa lam sa taxawee téeméeri i la yónnee waaye Cheikh Cheikh Amadou Bachir mi nga xam ne mooy porte parole moom moom la ko yónni kon la mu joxe am na solo waaye joxe wet am na solo te loolu lépp day wane rek ne këri diini yi yi ak fa ñu nekk wuute na waaye jubluwaay bi nag moom benn la ci kaw loolu si tam ñu ngi nuy suñ sëriñ bu baax muy sëriñ Saalihu eh, Mbàkke eh, maa ngi koy wax léegi bi mu ñëwee rek ndax man waa Mbamp nii miin naa leen xëy na moom man naa miinuma ko. jàpp naa ne jamono nekk boobu nekk gu fa waaye diggante sëñ Baara ma fa ma fa xamoon eh, yàlla yàlla yokk leeram muy wajur si sëñ maam Sayar muy xalifaam ak eh, sëñ daam eh, sëñ daam Mbàkke moom it ñoom mi naa mu nga xam mooy wajur yaakaar mu mel na mooy sa wajur kon mu mel ne moom laa miinut waaye wajur yi ñoom miin naa leen ndax ku koo xam ne ki nekkoon nga Ndiaye Mbampono dafa ñeenti at ci kër sëñ Modou Gol Ndiaye yaakaar kon bu mu ne xam naa daaru ak Mbampono ak mbéye kër ma daabel ak xabaar ak lëyeen loolu dëgg la kon fa tabarakalaa kon sëñ bi ñu ngi lay jox sa wàccuwaay xëy na gisee bi la moom waaye seexu naa say yi baay moom miin naa leen baax muy sëñ euh, sëñ maam Seer Mbàkke ak sëñ seexu naa ak maam Màll ba nga xam moom dafa teel a wàcc liggéey yàlla yàlla lo fa yàlla yàlla yokk leeram <coughs> kon fa tabarakalaa kàddu yooyu lañ ci doon euh, sànni waaye di rafetlu waa jotaay di daalal gan jàmm kilifa yi nga xam ne ñoom ñoom ñoo ñëw ànd ak ñun euh, fa jotaay bi ak waxtaan bi wax dëgg yàlla seen ñëw euh, gën naa jëmmal liñ doon euh, liñ doon def kon xam naa bu fekkee kon ñu jox kàddu gi ku ñu Alaaji Gay moom it mu sànni kàddu rek ci liñ fi doon wax mu jëm ci soññe rek ci jaamu yàlla xam naa Ibrahima nag waxtu dafa guddi dafa guddi te ñu am na mais yéen a yëkkati jotaay bi gannaaw bu ñu jullee tàkkusaan fa kilifa baax yi jiituñu waaye li nga doon laal foofu lu am solo la loo xamante ne bii moom desu ko mën a jam noonu rek eh, mu sotti ci benn kii muy wàllu laab te xam nga ne laab moom dafa jafe lool kon sëñ Alaaji bisimilah ñu jox la kàddu di leen siyaare di leen tatagal di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. dañuy wax ne kàddu moom mën nañu ko ñàkk ndax taaw yi dem na ba noppi te kilifa yi jotaay bi yàgg na si ñoom. waaye Cheikh nag yàlla moo ñu boole ndax yàgg na koy mébét mais tey la ko yàlla dogal gannaaw tey bu lii yàlla defee lii nag ñi dañ cey sant yàlla bu baax a baax gannaaw boobu ñu indi fii xabal ñi fii gannaaw programme bi itam bu rafet la ndax boo gisee rek da nga xam ne maîtrise na programme te ñuy fekk si tim jàppal na ko ci programme bi ndax kenn rek mënul dara te dëgg yàlla waxtaan wi si Ibrahima waxtim am na solo waaye loo gisee jamono ji ñaar boo gisee ñuy waxtaan dañ laa la programme nga koy ñaar nu ko def am na solo andi na ko ci góor ñi andi na ko ci jigéen ñi ndax yéen ñuy jàngale xam ngeen ne mbir mi dañ koy jaay mbir mi dañ koy jaay léeg-léeg nga yore xale di ko jàng ay at doo ci mën a am ndam yaaji ci boppam moo jënd mbir mi léeg-léeg nga xale bi moom ñoom ñaar ñooy bokk yaay mais xale bi na génn dem jàng ñëw te xale bi du mën a mokkal li koy waral yaay ja ci boppam premier ba nu mu nekk aw dundee ak waajuram sox jëkkëram deuxième bi maa bi moo ñëw baax bu ko defee ku ne ñu ko yóbbee si jox sëriñ ba da ci gaaw am dam gis ne loolu son léegi nag li koy waral mooy soxna yi neen war a dañu war a sëy ndax bu fekkee ne da ngaa dem ba jël dikk ngay nekk nga di ko diis a mbagg bu baax xam ne moom musi bu ñëw na ñaareel ba tim julli dañ koy fo dañ koy fooye dañ koy fooye bu baax a baax li war a si julli ndax ba ba nga demee hôpital ñii la hôpital lal bi nga ne boo ko mën a tiina rek nga jàkkoor la yàlla xiin sa xol kon waa wàccil la min la di ila la di lañ wax